doo xaar président di wàcc di ko def wala membre du gouvernement dañu gëm ne ku ci nekk sa buntu kër yow yaa koy defar sa bopp kon ci loolu bu gouvernement bi ñëwee def ko ñëw defal ñu honneur au niveau de Saint-Louis war a ñëw fii incha allah avec ministre de l'hydraulique pour ñëw ñu def action bi fii day nekk loo xam ne lu neex la responsable des femmes defe naa ne MOJUB moom buñ ko waxee moom mooy mouvement des femmes ñu ngi ciy woo ñëpp comme ni ñu ko daan defee di ci woo tout le monde di ci wax ne Euh, nekk na loo xam ne ñëw na di ko def mais même bu ñu ñëwul woon tam aussi ñooñu daan defee di bay suñu waar dinañ ko def di ci woo tout le monde. premier ministre Ousmane Sonko dafa bëgg ndar si xolam. moo tax ma damay woo tout le temps nii ñun ñii ëppale ko dara si nekk na bi ñu nekk ndar-ndar ndax fi la cosaanoo paawam yu am si ndar la ko jëlee moo tax su ne tey jii tànn na ndar pour ñëw fi. Euh, si opération set setal bi xam ni aussi euh, nawet baa ngi ñëw ak inondation yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ak problème mu assainissement bi nga xam ni mooy suñu problème mu bëgg fi ñëw euh, jàppale ñu ànd ak waa yi pour liggéey si loolu